Aziz Ndiaye li mu def dafa jafe. Mm-hmm. Ah. bokk ci beneen yoon ba ñëpp ràññee la ci. nga nga nga nga ñëw ci beneen yoon boo xam ni bu la neexoon doo ca ku ne xam na senegal ni mu mel. jaxase yi bari na. Mm. sànni njéeri yi bari na. Mm. defante bi mm-hmm. waaye sa jël yoon wépp def muy benn la muy def Tiwaawan lu ko raw koy def Tuubaa li muy def Tuubaa lu ko lu mu xe lu waa Touba xew la mu ci chaque année boobu ba tey chaque année chaque année te da koy def Ndiassane nag fépp waaye chaque année Aziz Aly Ndiaye jënd ay nag yu bari indi Touba te ñun Serigne Touba rek la ñu am ñun Serigne Touba rek la ñu am ñun ku ñu jàppal Serigne Touba ñu jàpp la ku jàppul Serigne Touba lañ jënte wuñu la mooy li wax chaque jour fonk ñu nawuñu jàppuñu wóoluwuñu gëmuñu teguñu bëgguñu ku dul Serigne Touba Xaadimu nañ ma comprendre li may wax nii tay li may def nii tayu ma ko. mais kon jëfi Aziz kon. koo xam ne nee ci beneen yoon la bokk maanaam di taalibe Cheikh. mais ñu koy gis muy dem Tivaouane di dem Ndiassane di dem Yoff ba ca Kerecee sax am na ko ko fi wax sàmm. kon loolu xanaa moom daa wane ne kon moom mu ngi ràbbale dëkk bi moom bëgg ñëpp doon benn. dama ne ko Aziz ñaata nag nga jënd mu ne ma xaw ma ñaata nag laa jënd waaye lu mu bon bon def naa ci quarante cinq mille. ah waaw. 45 millions ne ma yow sax ren dama lay may nag. na la nag dama la doon jox xaalisu màggal waaye ren dama lay jox nag. da ngaa yor dal bu bees. barki Serigne Bamba Mbacke non man damaa man damaa am dal bu mag. Ah. ñi may dégg ak may dégg. Ah. man sama dal jënatul max waa la ne. laay la tey maa ngi fay dal. yow ànd ñu fa daaw. waaw ñaari at yëpp. sama kër nijaay boobee. waaw ba ma nekkee xale laa fa doon dal fompu ma bàyyi ma ñax bii di génn ñàkk bii tey mooy sama maanaam man dama maa ngi gëm ni maa ngi liggéeyal sëriñ bi mhm. te sëriñ bi daf maa war a fay man damay business ci sëriñ tubaa xaadim rasul mooy business bu gaaw bi sëriñ tubaa loo ko defal mu fay loxo sëriñ tubaa ñemewul bor dama koy lebal daf may fay te fay googee yéen a ngi ciy teg seen bët mhm. barki sëriñ Bamba mhm. sama dalul nijaay la ba ma nekkee xale am cinq ans ba tey laa fa doon dal loo fa daan def doon ñaan yàlla yor kër gi te ren ji yàlla xam na ni boobu ba tey bi ma Serigne Touba wanee sama bopp ba tey samay waa kër may dégg maa yor kër gi. yaa yor kër gi barke Serigne Saliou Mbacke dama fay def lépp. bàyyiwu ma leen benn yoon dinañ am nag. dinañ ah. am boisson dinañ am fruit dinañ am ndox lépp lu nit di lekk fu ci ci matière ji dinañ ko lekk. ndax loolu maa ko ñaanoon Xaadimu Rasuul mi ma koy defal. bu sa yàgg Serigne Touba lan la. bari na bu ma ko laajee ci Babacar Serigne Touba lim ma defal dafa bari. Serigne Touba tax nit ñi naaw ma moo tax nit ñi fonk ma. Serigne Touba tax nit ñi yëg Serigne Touba ma defal lu ne. Serigne Touba may jox tey lii bu ma xam ni avancé naa ci suñu yoonu Serigne Touba bi rek laa ko am. ànduma fekk kenn ku ma wan ni tey nii nga mel su ma nee la ku dul Serigne Touba Xaadimu Rasuul. barke Seexul Xaadim ah waaw. secret boobu secret bu jëfe ndigal gi la wala secret kennal. mbëggeel gi la ak gëm ko muy dëgg. amuñu ku dul Serigne Touba goppal barke Seydina Mouhamadou Rasulullah si ma Serigne Touba. Ah. ndax bëgguma ñu wax ma daraay àdduna. bu safar gi dikkee. waaw bu ma wax ci daraay àdduna. dé mais nag àdduna da nga cee bokk nag te ci nga ne. waaye bu safar gi dugg see rus naa wax ci la. mais affaire tiktokoor yi ñuy def ay snap man lañ nommé maire jël ma boole ma ci liste bi def ay vote yooyu pour ma bokk ci liens yi dugg leen da nga ciy gis ka coow waaye ji dama ko talu ma lii. yaa proposé talu dama ne ko sa waay bu ma dugal ci yii yoonu période màggal talu ma loolu man période màggal ay publicité yenn publicité yi sax du ma ko barki alxuraanu karim kon xanaa yéen ku dul publicité lu jëm Màggal presse ay couche-toi ak ay yii nii yoo affaire yooyu du ma ko jël parce que méngoowul ak màggalu Xaadimu Rasuul kon xanaa coowal suba teel li muy dégg fan yii bu ma laaj ci bu ma laaj ci yooyu bu ma ci laaj ah, bu ma laaj ci lenn loo ah, bu ma laaj ci dara bu ma laaj ci showbiz bu ma laaj lamb dara laaj ma ci Xaadimu Rasuul rek. bu ma laaj ci dara dara ñoruma màggal gi rek xam nga bu ma laaj ci dara bu ma laaj ci dara bu ma laaj ci dara. laaj ma ci màggal gi laaj ma ci màggal gi. bu ma laaj ci dara bu ma laaj ci dara barke Seydina Muhammad bu ma laaj ci dara lu dul xaar kurus bu ma laaj ci dara lu dul xaar kurus bu ma laaj ci dara lu dul xaar kurus bu ma laaj ci dara lu dul xaar kurus bu ma dara lu dul xaar kurus sama yoon ñëw ci loolu laaj ma ci Xaadimu Rasul mi Cheikh Mbacke yaa mën ci kii dara de moo tax nag bu ma laaj ci Xaadimu Rasul ko dimbali laaj ma ci Xaadimu Rasul bu ma laaj ci kenn ku dul Xaadimu Rasul bu ma laaj ci lenn Xaadimu Rasul mi Cheikh Mbacke yaa mën ci kii dara de moo tax nag ci xaalis mosul ko dimbali laaj ma ci xaalis mosul. waaw jërëjëf ma laaj ci kenn ku ma laaj ci lenn. laaj ma ci bernde laaj ma ci pombiteer yi. laaj ci sobles yi. laaj ma euh, bi. laaj eh, ma ci ndox yi laaj ma ci jus yi. ñoom bambali ñoom bambali ñëwuñu su badel bambali damay laajte rek damay laajte rek. waaw ma laaj ci yooyu. damay laajte rek ma laaj ci fa. ah ma laaj ci fa ma laaj ci fa mais ma dun fii ma laaj ci fa. ah ma dun fii moom ma laaj ci fa ay waxi soo bis. comme ni ma ko waxee Serigne Touba rek. laaj leen ko Serigne Touba rek. ma laaj ci fa Serigne Touba ma laaj ci fa. laaj ma ci Xaadimu Rasuul. bul wax bambal ma ma Ndiaye ma Ndiaye. ma laaj ci fa ma laaj ci fa ma laaj ci fa. dama la ko wax tàpp eh, tàppal leen ko laaj ma ci xaadim rasul mi nga xam ne moom lan la sëriñ tubaa defal bari na sëriñ tubaa tax ñuy nooyi la ilaha illallah eh, eh. yéen wax lii ci lii